internet yu Dakaractu amat nañ mbégte bu baax andat ak si ci seen série d'entretien yi ñuy amal ça suné fi ci dakar Actu TV tey nak euh, ñu am mbégte bu baax di dalal ki nga xamante mom mo nek euh, Abdou Mbow nek député de assemblée nationale jité commission bi nga xamante mom mo nek euh, commission chargée des affaires étrangères mais également que vice venez également porte-parole adjoint du parti bi nga xamanteni ni alliance pour la république honorable nuyu nañ la. bon ngi lay euh, fay di nuyu bu baax. Euh, internautes yi nga xam ne ñu ngi ñuy euh, seetaan ci Actu ak euh, ñëpp ñi nga xamante ni nga àndal pour def interview yi di am mbégte bu baax euh, wuysu ci li nga interview bi hmm. alors on session bi session ordinaire de l'Assemblée nationale Comment na mu mel ni yéen vacances jamono ji waaw ñu ngi vacances parlementaires comme ni nga ko parce que l'Assemblée nationale a une session unique ordinaire euh, de euh, le plus tard le 15 octobre qui est admis ba pare di plus tard le 30 juin qui at mi nga xamanteni mo ci top hmm. lolu moy li nga xamanteni ne ni euh, loi bi wax mom hmm. euh, session ordinaire unique euh, loolu nag su amee ba le 30 juin dañuy tëj session bi ñu nekk li ñuy vacances parlementaires waaye woowu loolu terewul mm-hmm. euh, ñu continuer di liguer, de le liguer parlementaire bi maanaam ay plénière ay commission ak yooyu du am Ouais, liguer, même de faire continuer sur le plan administratif il ngi a une ma ci sama bureau dañuy continuer mm-hmm. Liguer, bi nga xamante administrativement au niveau de l'Assemblée même mm-hmm. la ñuy def euh, du aussi mon na am li nga xamante ni moom la ñuy woowee session extraordinaire. Mm. mu am ci biir trois mois yi parce que session extraordinaire président de la république moom moo ko mën a woote maanaam bu amee ay urgence yoo xamante ni assemblée dina ko war a def. Mm. wala aussi ay député bu ñu gisee ne am nañ urgence ñu woote session extraordinaire mais session extraordinaire bu ñu ko wootee mënul passé fukki fan ak juróom. Mm. te benn ordre du jour lay am mooy li nga xamante ni moo tax ñu woote ko donc loolu mooy li nga xamante ne ni war na mën a am ci session extraordinaire yi mais loolu. comme ni nga ko ni ko turam di waxee rek session extraordinaire lay doon maanaam bu amee loo xamante ni wax dëgg yàlla euh, voilà lu jàmp la te assemblée nationale war koo liggéey ce qui veut dire que assemblée nationale am liggéeyam mën naa ne amul vacances donc dañuy liggéey at mi yëpp Euh, alors session ordinaire bi ren contexte boo xamante mondial mooy am na lu mu ci def parce que gis nga ne même am na jamono boo xamante ne nii euh, ni ñu doon euh, liggéeyee dañu ko xaw a soppi maanaam plénière ñu wàññi nit ñi ciy ñëw mm. audience yi ñu wàññi ko yenn. Euh, commission yi sax gis nga ne dañoo wàññi woon ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci ñëw waaye terewul ñu continuer liggéey bi nga xamante ni moom la assemblée war def. parce que absolument musul taxaw assemblée mosul taxaw li mu war a def mi ngi koy def te amul benn instance boo xamante ni am nañ ko am tardement ci suñu liggéey. Le Président président assemblée nationale ci fait une session bi deug nga discours pour voir d'abord que l'Assemblée nationale mi à jour même li nga avons mo doon ay euh, ordonnance yi nga président nous avons déposé ñu déposer ay euh, ratification déposé nañ ko à temps pour dire que l'Assemblée nationale malgré Covid bi amna fait mu doon lu jafe euh, mi ngi continuer à di liggéey ci li nga euh, ko askan wi euh, sante alors Covid bobu la ñuy puisque ubbi le fenêtre bi alors Covid bobu euh, honorable nan nga gisee gestion bi parce que ñu bari gis nañ né y a eu un tâtonnement dans la gestion de cette crise est-ce que c'est le niveau c'est à votre niveau Oui, waaw xam nga ñiy wax un tâtonnement ba tey Euh, jox def affirmation gratuite rek naa naanaam wax ci air bi dafa yomb. Ah waaye wax ndi air bi dafa yomb parce que nag aussi euh, da ngay gis euh, ay looy wax da nga koy teg ci science teg ko ci ay firnde teg ko ci ay pronostic parce que boo xoolee àdduna bi da ngay gis ne dañu ne àdduna bi lii moom mooy nombre de cas yi. Mm-hmm. ñu ne Afrique lii mooy nombre de cas yi Sénégal lii mooy nombre de cas yi te gis nga ne. Sénégal parce que il faut que ay données scientifiques la wara jël di am saytu buñuy def parce que bo xolé Sénégal ñu ne taux de létalité bi nga xamante mo am mo gëna ndaw ci taux de létalité Afrique gëna ndaw taux de létalité en Europe gëna ndaw ci taux de létalité en euh, dans le monde parce que létalité moy ñi nga xamante dañuy faatu par rapport ak gestion bi ñi nga xamante ni dañuy wér euh, rapporté au nombre de ñi nga xamante ñoo testé ñoom lañ testé positif ta bo xolé tay ji ci euh, Sénégal gis ngeen ne am nañu taux de guérison bo xamanteni ëpp na 50 donc ce qui veut dire que traitement bi ñu ngi koy def ci yoon li nga xamanteni war nañ ko def ñu ngi koy def ba paré état bi malgré que euh, mbir mi dafa euh, bett ñep parce que ci tubab dañuy wax né aucun système de santé n'a été créé pour faire face à une pandémie mm-hmm. mais bu la yegsee lu nane lu la bett mën la état bi pris des ay mesures président de la république a pris ay mesures mais mais mesures yooyu mënuñu wax ne ça mënuñu wax que ça ne suffit pas mënuñu wax que ça ne suffit pas encore une fois comme je ma lay waxee ñi nga xam ne dañuy wax dañuy wax rek dans le vide mais ñun li ñuy wax dañu koy étayer ak ay preuves ce qu'il li am parce que en Afrique vous voyez, gis tey euh, Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xam dañ leen di citer en exemple par rapport à la gestion de la crise te a mm-hmm. ci début bi la ba ci fin bi te gis nga ministre de la santé jamono bii passé gis nga am na raaya buñ ko jox boo xamante ni Rwanda meilleur gestionnaire bi nga xamante ni moo am ci wax donc loolu dafa doon loo xamante ni lu am solo la te li may wax comme ni ma la ko waxee du waxu sànni wax la boo xam ne mën nañ ko vérifier sur le terrain malgré que mbir mi mi ngi yokk malgré que Euh, gis nga né état d'urgence bi jeex waye gestion bi nga xamante ni sur le plan institutionnel état bi mi ngi koy def sur le plan des mesures président de la république mi ngi koy def parce que gis nga bi mu jëlee plan de résilience bi nga xamante mom la jëloon para pour faire face à la pandémie gis nga même FMI bi nga xamante ci euh aduna bi gis nga ni ñuy di xam exactement nan l'économie ça saytu bi di amee mhm. gis nga né ñom ci sen bop rafetlu nañu nous de résilience bi nga que président parce que nak lo gis dina am lo ni ay dina am ay parce que mënut mais globalement dañu ko parce que président de la république dafa jël ay mesures yo ñepp sénégalais ñu ci la majorité gis nañ parce que li am solo comme ni la euh, wax mhm. di ko ont ci ab gestion nañu scientifiquement lan moy données pour que nous mëna euh, quand même une évaluation mais évaluation bi ñu globalement mhm. c'est une évaluation positive benen bi moy dañu wara continuer di sensibiliser les populations qui mesurent les barrières Il mhm. yow ci sa nga gis nga pratiquement y a un relâchement des sénégalais dafa mel ni dara xewul tabaski bi nga xamante ni ci lañu jub si da ngay gis ci foraay masque du am euh, boo génnee ci mid yi nit ñi duñu takk masque te loolu non mais état li mu war a def population bi kenn takkatul yaa ngi fees que jàppoo que non état waroon état bi encore une fois encore une fois gis nga ne hmm. sur le plan de des transports malgré levet état d'urgence bi gis nga li nga xamante ne moom continuer di def gis nga ministre de l'intérieur def arrêté boo xam port masque bi dañ ko généraliser ba obligatoire waa déglu ma xam nga aussi euh, généraliser décret beaucoup ak ki nga xamante ni moom exécuter parce que aussi c'est une affaire responsabilité collective parce que nag dafa am loo xamante aussi état bi mënut a jël Euh, sénégalais bu nekk mu def benn alkaati sa ginnaaw di la topp yor yat naan la tokkal max takkal max déedéet dafaa am loo xamante ni aussi mhm. c'est de la responsabilité des sénégalais maanaam ku ci nekk am nga responsabilité euh, li nga xam ne mooy ay mesures barrières nga koy respecter parce que le euh, docteur ñi ministère de la santé gis communication bi ñuy def état bi communication def même aujourd'hui les politiques ak les collectivités locales ñi ngi def sensibilisation gis le ministre de la santé même fi à Dakar muy dem ci foray, forêts, daral yi di masques les politiques les collectivités locales dans leur localité ñuy distribuer ay masques gis par exemple bi ubé ubbee écoles malgré que amna na ay di nga élèves mais gis nga quand même amna gestion bu am solo bu ci état bi def parce que la preuve ba ñu jëlee décision ibi école yi nga gis né amna ay enseignants yo xamné amnañ ko nañ état bi dafa reculer jëlat des dispositions pour am une gestion quand même bu am solo par rapport à cette ouverture de classe parce que ku ne xam na ne jàng ak xalé yi dañu metté yor mais état bi daf ci jël ay responsabilités ba gis nga amul ben catastrophe bo xamné yang ko dég donc lool limi wone rek moy nit soy joxé ay firndé dang koy teg ci ay données scientifiques les données scientifiques je pense que c'est ce ñuy joxe te loolu moom am solo mais wax ji nga xamante ni ñi dañ koy wax te maîtriser wuñu un peu li je pense que amul solo d'accord honorable euh, gestion Covid 19 nous bi euh, ñu tëj fenêtre boobu ubbi gestion la gestion des biens publics. gis rapport yi nga xamante ni génn na te inspection générale d'État génnee ko mu fësal état. Euh, de la malgouvernance au Sénégal si on se permet de le dire hein, surtout avec le scandale yoo xamante ni génne nañ ko mettre ko à nu noo c'est d'abord rapport yi l'Université euh, d'abord nous devons a rafetlu. Nous avons des organes qui xamné mm-hmm. dañuy génne li nga xamanteni mom moy mooy bu normalul ci état xam nga loolu lan lay wone d'abord. Mm-hmm. que président de la république muy Macky Sall transparence mm-hmm. daf ko def cheval de bataille. gestion sobre et vertueuse bu mu doon wax. loolu def ko soxal parce que bu ko soxal woon tey du ñu am ay rapport sax wala am ay organes yu def rapport bay génne naan li baax naag lii baaxul parce que nag aussi loolu dañ ko war a rafetlu parce que euh, li gën a am solo mooy am na ay jamono daawoo dégg sax ñu ne am na rapport bi wala rapport waaye rapport yi ñu ne jox nañ ko président ba pare ñu ne taskatu xabaar yi ñu ngi ciy wax wala nit ñi ñu ngi ciy wax loolu am na solo d'abord beneen bi mooy mm-hmm. ñun en tout cas suñu parti gis nga def nañ benn communiqué pour d'abord féliciter le président de la République ba pare encourager ko mhm. parce que mom li nga xamanteni mom la jot mhm. ci ay recommandations IGE yëpp daf ko jébbal ñi nga xamante ni la ko wara a te damay fatali ne mhm. rapport yi du yëpp rek mo am ay euh, recommandation yu wara dem sur le plan judiciaire amna yo yoo ay recommandation administrative te yag nga dégg peut-être duñ ciy médiatiser lu bari que ñi nga xamante ni ñom ñoo yor euh, ay cour des comptes ak ay sanctions administratives par rapport aux gestionnaires mm-hmm. ñi nga ni justice le temps de la justice n'est pas le temps des hommes justice mom xamna luma wara doxé mm-hmm. la war mm-hmm. mais ñun recommandation que ñu suivre à la lettre parti ñun nañ ci président de pour que ñu yi nga ni faute de gestion la tax man dama tout le temps responsabilité bi nga moom la ku nekk président de la république am di wax ay rapport responsabilité boobu le gestionnaire bi nga xamante ni moom la ñu épinglé am su fekkee ne da nga nekk un gestionnaire ñu ne lii nga def kat baaxul wala am na ay rëq-rëq jàpp naa ne war nga jël say responsabilité pour que la nga xamante nii moom nga war a wuyu bu dee ci kanamu chambre administrative yi cour des comptes nga dem bu dee ci kanamu yoon nga dem te loolu jàpp naa ne yoon moo koy déterminer et ñun loolu mooy li nga xamante ni moom la ñuy prôné parce que président de la république ci loolu la nekk suba guddi ak ngoon. est koo xamante ni épinglé mais déggoo li ma la wax xam nga loolu moom mooy la règle de quelqu'un qui a fauté ku fauté mm. dañ ko war a sanctionné président de la république moom ci boppam mm-hmm. recommandation yi nga recommandation yi nga ko jox mm. def noonu la koy jébbale ña nga xamante ni noonu la ko jébbal donc amul koo xamante ni président dina la euh, sàng wala mu muur la parce que loolu mom ci bopam daf ko mus di wax te loolu lay doxé parce que ñu bari japp nañ que ni rapport yi do aboutir fenn parce que gis nañ fi rapport of nak fan la mujj dëggatoo fenn. wa wa wa comme ni wala waxé xam nga chaque jour ba naan may nañ leen ku nek 45 jours peut-être pour nga justifier li nga xamanteni mom nga yoré c'est pas un problème honorable loolu mom moy encore félicité le président de la République parce ah que nous, bari mm. ñi président a euh, euh, fait une déclaration patrimoine pourquoi mais attends mm-hmm. il faut que nous dans la constitution nous bari des fois un président nouvellement élu mm-hmm. doit faire sa déclaration de patrimoine le président a été nouvellement élu quand en 2012 mm-hmm. il avait fait sa déclaration de patrimoine donc il faut que nous, nous nous, maintenant nous nous, nous, euh, bu amul mom hmm. mi nga xamanteni mom moy mooy euh, le moy moy moy moy le gardien de la constitution mo wara a hmm. ñaax hmm. ay ay ministre ñu dem def déclaration de patrimoine loolu dafa bok ci transparence parce que mënoon na toog rek dàpp na mais mom mo am la responsabilité saytu

donc c'est la responsabilité du président mm. et je pense que il faut vraiment mm. ñu féliciter ko ci loolu loolu mooy wane ne transparence bi muy woote moo ci d'accord alors si euh, rapport IG toujours euh, honorable c'est la nuit d'Est, parce que dégg nañ ki nga xamante ni moom moo le forum civil euh, Birahim Seck pour ne pas le nommer nee na audit yooyu dañ ko war a yaatal yóbbu ko ba ci assemblée nationale waaye tamit euh, pourquoi pas ñu auditer fondation Servir le Sénégal ànd nga ci li mel mais xam nga aussi ni ma la wax rek moy xam nga dëkk bi dafa am yoon am ay loi ak règlement c'est pas parce que euh, un coordinateur d'un tel d'une telle structure wax na rek dañoo war a def lool non non non parce que ñom ci seen bop je pense que euh, du ma dugg ci ay euh, nu ñuy gestion yeneen am na yoo xamante ni la concerner mais en tout cas état bi ni nga xamanteni non la wara doxé ñu tek ko ci ay sart manam constitution ak loi ak règlement yi am ci réew mi dinañu ko def sans complaisance mm dinañu ko def sans état d'âme maintenant nak comme ni ma la ko waxee am na yoo xam ne dafay nuru ay politique politicienne ak ay attaques personnelles mm. et je pense que euh, mbir la yo xamante ni man wax dëgg yàlla euh, romb na fofu te duma polémiquer ak ay nit ci ay affaire attaque personnelle parce que dafa am lo xamante ni mm. euh, nit ñi dañu koy def pour cibler une personne mm. alors que bu fekkee da nga nek njiit non oui parce que bu fekkee da nga nek njiit waro di wax ci ay waxu personne il faut rester sur les principes il faut rester sur euh, la gestion bien président prône une gestion sobre et vertueuse et li nga a une gestion la bo dañ ko parce que damay président de la république mo fi indi président de la république mo wax ñu loi sur la transparence donc kooku kuy wax transparence mom ngay dimbali kuy wax transparence ngay donc ñi nga ay organisation euh, de la société civile c'est normal que ñu wax sen

amul lo xamanteni ni na parce que assemblée nationale budget dañuy wax ne tel plus nangam amul dara lu ci lëndëm fi lañ koy voter assemblée nationale. ñu wax ne ni la démé du ay yo xamné ay transfert la ak ay yenen budget bu lèr la. boo xamante ne lii ay salaire la li ay indemnité la li ay. amul lu lëndëm. donc lolu mi ngi ci situ ministère des finances bi nga xamanteni budget bi ma nga ca donc vraiment je pense que mom bu fekkee amna na leneen lu muy xam na dem wax fenen mais fi amul dara lu fi lëndëm bu fekkoon lëndëm na hmm. mën nañ wax mais comme ni ma la ko waxe liñ ciy def mi ngi ci internet bi amul dara lo xamanteni ni lëndëm encore une fois de plus man question de personne du ci duggu romb na fofu wax y'a yàlla je préfère rester sur les principes d'accord honorable maa wax tout à l'heure si présentation bi yow yaa nekk porte parole adjoint du parti bi alliance pour la république te ji ngeen nekk si nguur gi mel ni seen parti bi Yenguna, na gis nañ fi ñu génn si médias yi attaqué génne ay saaga si hein, lendemain bi euh, am ñoo xamante génn nañ commission de discipline du parti bi di APR euh, sanctionné naan dàq nañ ki nga xamante ni moom Moustapha Cissé c'est parti bi alors si lan ngeen soukandiku ngir ngeen dakh kii di Moustapha Cissé Lo parti. waaw je pense que loolu c'est un débat bo xamné c'est derrière nous. liñu soukandiku moy derrière nous moy dañu ko dépassé xam nga lutax moy hmm. ñun comme ni nga ko waxee parti le bo xam nga parti politique mënut a ñàkk ay réro hmm. ñun ñep fi ñuy jógee bokkul. Hmm. ku nekk am nga sa éducation ku ak am nga doxé ba paré nak c'est une démocratie interne et une liberté d'expression maanaam ku ku nekk am nga sañ-sañu am sa xalaat euh, li nga xamante ni moom la ñu sukkandiku ba def ko je pense que loolu sénégalais ci boppam mën nañ ci juger yow mi taskatu xabaar mën nga ci juger parce que parti politique dafa doon association privée boo xamante ni dafa am ay sart maanaam statut ak réglement intérieur maintenant nag bu fekkee ne yow dem nga ba la nga xam ne moom la statut yi wax ak règlement sàmmonte woog moom commission discipline bi nga xam ne moo nekk ci biir parti bi saytu ko ba jël ci décision mm. je pense que loolu lo xamante ni la mm. sénégalais ci boppam ci foofu la ñuy xaar parce que la preuve ñun dañu dénk mm-hmm. li nga xamante ni moom la gestion de ce pays mm-hmm. ñu yor réew mi di gérer ñun ak suñu ay alliés mm-hmm. donc jàpp naa am na comportement boo xamante ni moom la ñu war a am vis-à-vis des sénégalais am nañu nu ñu war a waxee vis de vis des sénégalais am na nu ñu war a doxalee vis de vis des sénégalais am na wax waxin yoo xam ne nag ak doxalin boo xamante ni sénégalais yi xaar ñu ko ci ñun mhm. donc su amee ñenn ñu ko am ci ñun suñu biir mhm. war ñu munu saytu ko xool la nga xamante nii moo ci war ci ay daan ñu def ko loolu mooy la responsabilité maintenant nag mhm. li ci des c'est des problèmes yoo xamante ni c'est des problèmes crypto personnels bokkul ak gestion mhm. réew parce que réew dafa doon lu am solo mhm. état dafa doon loo xam ne lu am solo lu sérieux parce que sénégalais yi bu ñu jëlee seen baat ne la yow la ñu dénk c'est parce que am na fu ñu lay xaar ci wàllu njub ci wàllu comportement ci wàllu doxalin ak ci wàllu jëmin donc yooyu da ko war di xool di ko saytu parce que sëriñ Babacar si sama sëriñ baax bi dafa daan wax ne nit su la wóoloo ba dénk la war nga mën a am taneef boo xamante ni di nga ko ko tanee ba bu la tooñee nga jéggal ko loolu li muy wund rek mooy yow mi nga xam ne yow la ñu jox seen baat gënoo nit ñi ndey gënoo leen bàyyi mais dañu la tànn ne yow yaa ñu doy yow la ñu wóol waaye wóolu te bu ñu la wóolu warul tax nga mën a def nit ñi jàmm danga leen di def nawle ba pare nag lépp loo xamante ni xalaat nga ne rafetul ci doxalin ci jëfin nga mun ko moytu donc loolu moo waral ñun décision yi jël ñu des ko ba pare nag am ay sart yoo xam ne ci foofu lañ ko teg ba jël décision bi ñu war a jël. am ñu commission de discipline boobu amul légitimité ndax kii di Moustapha Cissé Lo ndaxte président rek ki nga xamante ne moom moo jiite parti bi moom moo war a jël ndogal. waaw ñaar ñi nga dégg kenn nga kenn laa dégg nga wax mu wax lolu te mom ci bopam je pense que il est disqualifié pour wax ci parce que mom ci bopam bokkatul ci parti hmm. parce que euh, non du ma dugg ci tour comme nima la ko waxe en tout cas yow da nga wax ñen hmm. man ken la dégg mu wax lolu donc amul dara lo xamanteni ni wax parce que comme nima la ko waxe hmm. ñun bañu jëlé décision bi c'est motivé bo xolé décision bi ay article lañu visé te amul dara loo xamante ne nii dëppoo na euh, dëppoowul ak la nga xamné moy mooy yi nga xamné mo teunk suñu parti te loolu rek moo am solo. d'accord honorable jàpp nga ni c'est le moment choisi pour exclure ay militants ñu war massifier préparer yenen. Euh, xam nga dama la wax sànq. Mhm. Sénégalais dañu denk. am fu ñuy xaar. tout à fait euh, li am solo. moy mhm. loo gis. Mhm. séparation c'est difficile. Moustapha Cissé Lo suñu sañoon du génn ci parti bi. parce que nga bëgg ko nga bañ ko xexna pour alliance pour la république jambar la ci alliance pour la république mais comme ni moo la ko dafa am ay règles yu teunk parti bi règles yooyu japp naa bu fekkee ne parti bi japp nañ ne nga ko war nañ mun jël ay décisions mais cela n'enlève en rien que mom ci bopam xex bi mu xeexal parti bi koku ken naatable ko donc il faut que les gens sachent que ñun du problème personne mm-hmm. problème équilibre la gestion mm-hmm. d'un parti maintenant li ci kanam après luy que ñu mais ah, amul séparation du génn ci parti bi ñëpp ñoo xam ne ñi ngi ci woon dañ ciy kon ne nekk ba pare ñeneen ñi nga xamante ni sax nekkuñu ci ñu jéem a fexe ñu ñëw ànd ak président parce que jàpp nañ ne loolu moom moo jik réew mi. am na médiation bu boo xamante ni am na yenn acteurs politiques yu ko entamé ci biir parti bi. mais loolu mooy Sénégal loolu mooy Sénégal. pare ngeen pour ubbil ko bunt yi mu mais non du tax pare nañ xam nga ñun suñu parti dañ ne même bu ñu la dàqee. Mm-hmm. am nga possibilité def recours. Mm-hmm. bind baalu. ne man kat bëgg naa ñëwaat ci parti bi secrétariat exécutif examiner mm. loolu c' est possible donc c' est pas parce que dàq nañ la ci parti bi rek mënoo ci ñëwaat mm. tu peux parti parce que gis nga ñoo xam ne dàq nañ leen ci parti ñu ñëwaat ci te ñun suñu ay tex prévoir loolu donc texte yi kay bu prévoir loolu moom mooy mën naa nekk waaw mais c' est pas contradictoire parce que yow fi nga nekk ni Dakar Actu mm. am na ñoo xam ne ñekkoon nañ fa juge fa après ñëwaat nek fa lan moo tax ñëwaat kenn xamul parce que loolu waxtaanu biir nek la aussi. Mhm. d'accord honorable ñu entamer benen euh, benen fenêtre bi benen fenêtre dem ci international bi parce que tout à l'heure maa ngi koy wax ya nek député président commission affaires étrangères té jii gis nga li nga xamanteni mom mo am ci Mali nek euh, à côté alors nan nga gisé crise bobu d'abord ouais mais crise bobu d'abord euh dama japp né nit ñi. Mhm. dañ ci wara def dal def ndank mhm. parce que Mali dafa nekk dëkk boo xam ne mook Sénégal presque ben lañ xam nga bu ñu wax la fédération du Mali ñi nga xam xam nañ histoire touti Sénégal ak Mali ben rew la won muy fédération du Mali euh, après 9 euh, mois ci lañ séparé wu mu am Mali ak Sénégal nga gis ne même chemin de fer ñun ñoko ko bokk muy gis nga Dakar Bamako ferroviaire administrateur bi daan administrer euh, ñaari chemin parce que ñun ñoko ko bokkoon bi ñu créé chemin de fer du Sénégal yagul donc histoire Mali ak Sénégal dafa doon une très vieille histoire lu yàgg donc nit ñi dañ ci war a def ndànk muy benn. gis nañ ne bi médiation bi amee président de la république ak ay euh, naataangoom chef d'état dem nañ fa pour mën a indiwaat jàmm ci réew te ñu wax ne dafa dem au-delà même de crise bi fa am parce que Mali. depuis pas mal de temps gis nga terrorisme bi fa nekk. Mhm. dëkk bi mën nañ ne dafa xaajaloo. Sénégalais yi gis nga ne ay yone nañ fa ay ndaw yo xamanteni ñi ngi fa ak seen pays africain. donc ce qui veut dire que Sénégal dafa au côté du Mali président de la République nak mu doon leadership am ci Afrique waxantuma la ci sous région bi gis nga euh, euh, imam di leadership président de la République ak taxawaayam donc di ci profité rek di ñaawlu bu baax li nga xamante ni gis naa waa CRD yi bind ko parce que loolu moom li mu leen di li li ñu war moom mooy ñoom dañu war a def ndànk xam ne euh, Mali waruñu ko ñaanal mu embrasé wu parce que ñoom dafa mel ne loolu moom mooy seen mébét parce que bu ñuy dem ba naan le président de la République warul dem foofu mooy ñoom seen bopp xamuñu seen bopp

kaddu yo xamanteni je pense que ñepp waroon nañ ko wax ba mu des ci mom parce que Abdou Mbaye je pense que son histoire yagul yagul barki dembo ñay la euh, non du débat personne du débat en tout cas parce que non li gëna a importance xam nga moy lan. Hmm. moy hmm. mënu ñu am ben conflit. Hmm. bu mel conflit bi am Mali. un ancien premier ministre du Sénégal ñu jël président de la république bu Sénégal boole ko ci chef de yi dem pour defar loolu nga ne moom warul dem xam nga loolu dafay nuru soxor muy benn wala koo xamante ne tu n'es même pas un patriote parce que tey ji Sénégalais, yëpp dañoo waroon a booloo ci ginnaaw président Macky Sall pour que Mali mu am parce que après nag bu ñu paree problème différence politique ñu lijjanti ko fii ce qui est la responsabilité gis nga nit boo nekk un homme d'état da ngay xam un homme d'état parce que Abdou tout ce qu'il a fait dans le gouvernement wala def ci ñun duñ ko toog di wax parce que nous dépassons nañ loolu on est ñun sommes tous les wax dëgg donc vraiment dama leen di wax ne dañu revenir à la raison dañu devons dal Sénégal le la moo xamante ne leadership bu mu am en Afrique kenn mënu ko déñ président de la République leadership bi am en Afrique mhm. du ñom ñoko mëna wañil du ñom ñoko mëna dindi parce que fi ci bopam mhm. ñun ñëpp dañu dem élection ñenn ñi bëggono dem élection ñu sax am parrainage donc ñoñu moy sénégalais déglu wuñu leen donc je pense que il faut que nit ñi dal mhm. et puis nit day xam bopam c'est important. d'accord émission bi jeex na honorable. waaw maa ngi lay sant di la gërëm di wax ne waxtaan bi amna solo et je préfère tout le temps ñuy am échange pour vraiment di wax sur l'essentiel man euh, dama bëgg waxtaan buñuy waxtaan rek ñukoy def sur des principes ak di am ay données scientifiques bañ di wax di sànni parce que kilifa di wax di sànni. d'accord amna na solo mbokk sétan seetaan Dakaractu jox nañ leen dig daje benen semaine inshallah, si c'est une question d'actualité jërë ngeen